وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أول بلا بداية الحمد لله آخر بلا نهاية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين بآله وصحبه وخديمه آمين نيجي لين ديسيار دي نيو مبولم أدنبي يب غور أجيجن ماك أنداو di ñaan suñ kaddu fekk ñepp ci jamm di wax ni ñi ngi ñaan yalla bu baax baax ñi ne ci lali hôpital yi yalla yëkëti leen nam gëna gaawé ñi ciabi fété ginaaw suñ borom taxaw leen gindi leen genn leen ñi dëddu aduna suñ borom yërem leen te fañ gëna leen fi ñu joggé di leen wax bismillah Mm-hmm. waaw laaj nga lu am solo muy euh, xam-xamu asraar mu doon xam-xam boo xam ni bàngaas la ci képp ku ni da ngay ñaanale da ngay ñaanale yàlla képp koo xam taxaw nga taxawaayu euh, di ñaanal doomu aadama yi yàlla euh, sart la ci nga xam loolu ñoo xilmul asraar muy xam-xam boo xam ni dafa nëbbu làmboo mbóot yu bari muy xam-xam boo xam ni añ mun nujjoom mi ngi ci biir buñ ne xilmul nujjoom nag xilmul fëlëg sax moo gën a ndax lépp lu aju ci jaww ji mi ngi ci biir ilmul ramlu mi ngi ci biir ilmul xawaatim mi ngi ci bir, ilmul xuróof mi ngi ci biir yooyu yëpp ci xeeti xam-xam la yoo xam ni ci biir ilmul asraar la nga xam ni buñ ko doon yaatal yaakaar duñ fi jog mu doon bàngaas boo xam ni ku ni da ngay ñaanale rek war nga xam te gone yi jógee léegi gone yi jógte ñaan te xamuñu lan mooy ñaan dama leen di laabiri ñu dem gëstu ji loolu waaw ñu dem gëstu ji loolu am na gone yoo sax euh, dañ ko fi ñun jàngale taxul ñoo jóg dëgg-dëgg waaw du ñàkk benn benn yoo xam ne bu ñu amee jot leen ci xamal euh, ñu ngir ñu ci dimbali nit ñi waaye nag loolu ca dëgg-dëgg nag taxu ñoo jóg ndax euh, li ñu war bari na suñ digganteeg doomu aadama yi itam ñi liñ ci war di dimbali dafa bari. Mhm. waaw kon moom jëmme xam mhm. eh, na cee def lépp lépp mhm. waaw laaj nga lu am solo ndax xam-xamu asraar mënees na cee def lépp lu doomu adama bi di aajowoo waaw waaw mënees na cee def lépp lu doomu adama bi di aajowoo ak lu mu mën di doon ndax eh, asraar ba tey bokk na ci ki ko peeg day xam mbóoti alquran buñ ñëwee mbóoti alquran nag alquran maa farat naa fil kitaab min shay'in bawut dara te itam lépp a ngi ci biir te wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma waaye daanaka ni muy saafaraa jëmmi nit ki ci ay aajoom nu ko raw lay lay dimbalee nit ki ci ak mujjëm ëllëg waaw moo tax suñu borom moom euh, dimbali nañu ci bu baax a baax a baax euh, amul lu lu munta saafara moom waaw ba lépp lu nit ki mën a am rek wala lépp lu nit ki mën a bëgg rek wala bépp tolof tolof bu nit ki mën a ne rek moo xam tëju la moo xam yaakaar muy tas la moo xam jafe-jafe yaram la moo xam jëflanteeg diggam ak njabootam la moo xam jëflanteem digga diggam ak ñi muy liggéeyal la moo xam jëflante la diggam ak ñi nga xam ni ñooy ay wëllëreem lu mu ci mën di doon rek euh, xam-xamu asraar am na ca wàll boo xam ni mën na caa jëriñ nit ki ak dundam ba ba ba dootu ba dootu masa xam ni am na la ko doon metti ba doo mën naa bañ a mën naa fàtte sax coono yam amoon avant mu koy mu koy mu koy mu koy saafaraw ci xam-xamu asraar ndax gumba gi yoru bant di dox bu jek jékki woon xippi man na fàtte ni yoron na bant donte téeméeri at la ko yor lu ko waral moy la taxone mu yor loola euh, daanaka ñak pexe la suñu borom dimbali nako nak mi gis legi man na lola sax xam-xamu asrar yi non la jafe-jafe yu mu fekk nit ki na naa lo jafe-jafe yoy nit ki. Mhm. serigne bi bëgguna ñu waxtaan ci sét hmm waaw solo mm, buñ ne asrar ni set set dafa doon lu mënul ñak nak alxuraan daf ni waatul buyuuta min abwaabihaa mbir mu mën di doon nañ koy jaar ci buntum buntum ñaan nak ku ne xam na ni moy seet itam doon loo xam ni dafa am solo euh, mu bàyyi ko woon ci yonti yàlla Idris alayhi salaam mu doon loo xam ni waxtu wu ne rek nit ki lépp lu lu mën di dugg bu ko seetee néewaana mu di ci am gàcce waxuma nag mu seet ko ba pare toog ni yàcc yàccaaral mu seet ko ba pare xam lim seetay lan ba pare lañ ko ca tegtal mu def ko loolu doomu aadama bi bu ko defee diirug dundam mën naa bañ aajooti ay problème ak i jafe-jafe ndax am na ñooñ euh, ñaan yu ñaan lu yàlla nii sax jërum ñu àgg am na yooyu buñ ko saraxee rek danaka sun borom dalen di dimbali. bëgg mhm. nañoo xam ban for am ci seet maanaam qualité bi suñu borom defal ak ci ban anam nga koy defee. Mhm. laaj nga lu am solo muy qualité bi ak euh, ci gan anam lañ koy defé lolu nak danaka doonul luñu mëna yaatal ndax euh, xam-xam la bo xamni nima la ko waxe sank ni la dafa nëbbu du lepp lañ man di wax waye dal nit ki mom sa buñ laaje liñ koy laaj ci ay ci ay turam danaka euh, ak juddoom ba fam tollu nonu dara du ñu ci ump waaw day leer nañ ci sunu sunu sunu sunu nopp. Mhm. bëgg nañoo ñëw tamit ci beneen question nit ñi ñu ngi koy jàmbat bu waaw solo. lo xam ne daanaka doomu aadama kuy tëwoo te waxtu ne dañ ciy jariñu càngatu wërsëg nag dafa doon loo xam ni mënul ñàkk ci jullit bi rawante naa ak jàmm bi góorgóorlu ndax àdduna nit ki bu amut ubbiku rek lépp loo mën di yëngu doo ca gis avancement da ngay gis ku liggéey fukki at wala lu ëpp fukki at lu ne di jaar ci loxoom te mënut taxawal sax ab te munta sax def dara ci ay mébétam xam ngeen loolu li koy waralam mooy tëju tëju nag nit ki saa bu ko defee lay xam ni la koy la mandarga ma muy xamee ni tëju na mooy mu seet ko bu ko seetee dana xam ni tëju na wala tëjuwut te buñ ko seetee ba jox ko gala galaaj yoo xam ni ci lay ubbi ko diirub dundam dootu am jafe-jafe yooyu te lépp lu mu yóotu da koy jot lépp lu mu yaakaar dootu tas te bari na ci ñoo xam ni euh, ñoom li ñuy yaakaar muy tas fi mu ne loolu problème la ci ñoom xamuñ lu koy waral li ñuy yootu duñ ci jot problème lañ ci problème la ci ñoom xamuñ lu koy waral. am na solo mhm. ci lu jëm ci wàllu mhm. euh, ko mënuñoo tëdd wërsëg ko jamono ji boo xoolee nit ñu bëree ñu ngi koy jàmbat bëri na sax ay nit ñoo ne ñu ngi koy wax waxtu demee ba li nga laaj am na solo muy mbirum fay bor fay bor nag yàlla dañu cee may may goo xam ni li ma yàgg wax ni képp kuñ ciy jëflanteel waxtu wu dellu si sax du ko am mukk te koo ko la sa bor euh, ndax fay bor nag du lu ñuy tëb tëb rek soobu ci faaw dañ koy seet ba pare ni ma la ko waxee ndax nit ki am na lum la faye ndax bu amee lum la faye itam ndax nit ki itam bu la fayee du loru ndax dimbali doomu aadama ba doomu aadama di ca loroo loolu moom baaxut loolu baaxut duñ ko def ndax waaye mbirum fay bor moom am nañ ci may goo xam ni képp kuñ ñi kuñ ko seetal ba ni la mën nañ ko 24 ko du fa àgg sa bor ku la koy rel dana la ko fay ndax li tax ñu ciy Al itam euh, alquran daf ci addu ay bi gëna guddu ci alquran mu ya ayyuhal ladzina amanu isaa tadaayantum bi daynin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli ila akhir ayah mu doon ay bu guddu bo xamni ci mbirum fay bor rek lay wax kon kep ku euh, lepp nit te fayoko lolu mom moom do nee ko fay rek te ak da fek ak wut ci man boo ci man nga ni do ko fay rek euh, mom wax joju juyo nak deug ndax bor mom kep ku ko yorel nit danaka limay limay faral di wax rek danaka limay def buma ko defé nit ki mom lu nelaw mukk ci blal te fay la sa bor waaw ne mooy li nga laaj ci njëlbeen ni asrar ndax bana dara motax manila la bawut dara mhm. waaw nopp mom yag nañ ci waxtaan mu don lo xamni itam euh dafa yeme ñun duñ tepp tepp rek nopp ndax nopp faaw nga xam ki ngay nopp seeni broj ak seeni bidiw ndax nopp nopp xamuñ exactement lan mooy nopp. nopp mhm. waaw ñaar yooyu bokkuñ. Mm. waaw tasxiir mooy tàggat ñu koy wax dottu loolu day dox ci diggante koo xam ni déggalut baayam baa koo xam ni déggalut yaayam baa koo xam ni euh, yow yaa ko yilif ngay kilifaam ci côté te déggalu la kooku ngay tasxiir dottu ko ba li nga koy wax mu def ko bokkut ak nopp nopp mooy loo xam ni da koy def ci xolub nit ki du lekk du naan li fekk déggu la. tey jii bu bu ngeen amee bu boo ko defee daanaka bu ngeen neexawut sax bu doon lekk lekk du ko saf dara léegi nag loolu mooy nopp loolu dañ koy liggéey duñ tëb tëb liggéey ko ni ma la ko waxee sànq ndax euh, am na yooyu euh, boo ko defee da lay ni ak njëlbeen lay am waaye du amul mujj am na boo ko defee ala kulli xaal dara mën na caa bañ a xew moo tax li ma la wax sànq ni la lu mu ci mën a doon rek lu si xool la ba pare nopp nag yaakaar naa am nañ ci may goo xam ni umpul kenn ci àdduna ci ñu ci ñu ci ñuñ ko jot a ndax nopp am nañ ci may goo xam ni daanaka ki ñu koy defal bu ñu ko ko defalee dont bi yéefar la laa wax dont bi yéefar la donte ku gëmul yàlla la sax ki ñu ko defal da dana ko bëgg. Mhm. Mhm. waaw laaj nga lu am solo muy kàttan kàttan nag dañ ci am may goo xam ni daanaka nit ki eh, du kàttan kese da da koy may kàttan garab gi ñu ci yor nit ki ba war a am fas woon sax day daal di day daal di day daal di fecc ko waat nga xam ni tey jii garab la goo xam ni eh, ñi ñu koy jox tey jii bu ñu ko joxee nit bu de koy sàmm boppam dëgg. Euh, day mu am lu ko metti ndax doosaayu garab gi ak yéeme gu yéeme mu wuteeg garab yu baree bari yu doomaadama aadama yi joxe tax euh, ñi sëriñ si duñ fi jóg ci di ko jël ndax li ko sabab mooy garab la goo xam ni yombut nag du garab gu yomb te it euh, joxin wi duñ ñi yomb ndax li tax mooy garab la goo xam ni nit ki bu ko jëlee dundam dootu aajo dootu aajowoo lu jëm ci kàttan day daal di saafarawu diirub dundam garab la goo xam ni daanaka ñi ko jot am xam nañ ko daanaka bu ñu demee ba di ci jëflanteek ñoo xam ni sax gëmuñu yàlla ay docteur yo xamni ñi ngi France di ay tubab di leen ko jox kon lolu xamnañ nañ ni euh, wuté nak eh, garab yi nit ñi joxe ndax ñom yor nañ ci ay dom te taxun ñu jël ko sama garab gi la ñuy jël lu waral lolu moy may ku yalla giñ ci am té mu doon lo xamni geussu nañ ko waye biñ ko geusso sun borom dañ ci fekk dimbalam nga xamni nga xamni katan mom moom euh, nit ñu jox la garab nga diko ko ci aduna dootu am li ci aduna yalla dañ ñoo defal lo xamni euh du lu ñuy sax nit mun a jaar ci ñun wax ñu aajo di ko jàmbataat feneen loolu ñun du suñ jom euh, du du du suñ suñ jom dépassé na loolu. Mhm. macha allah loolu am na solo kon bu ñu waxtaanee ci loolu wax daanaka jublu nga li ëpp solo ci mbiru asraar. Mhm. wax ko xam naa kon du ñàkk ñu ñëw ak yow ci tomb bu am solo mu mel ni euh, lu mel ni ay ay ay lu mel ni. jigéen bu am boo xam ne dafa. taxaw lu yàgg. Mhm. bëgg borom mhm. koy gisee ci mhm. góor boo xam ne day bëgg soxna am na ko nañ ci saafara ndax loolu li koy sabab eh, léeg-léeg eh, mën na doon ci ku góor ki léeg-léeg itam mën na doon ci ku jigéen ki ah, rab daf koy faral di def nit ki ñu dëj ko daf koy faral di def wala ñu liggéey ko ba daanaka du mën dara yooyu yëpp daf koy faral di def waaye li mu ci mën a doon rek li ma la wax sànq ni la mbir yi duñ tëb tëb soobu ci te seetuñu ko ndax seet moo nuy mën a xamal problème bi li ko waral ginnaaw problème bi li ko waral nu ñuy def ba problème bi saafaraw ba dootu am euh, yàlla def nii itam daanaka loolu ci jigéen ju taxaw liñ koy jox bu ñu ko ko joxee ñeen fukki guddi bu ko amee bala mu caa àgg dana am borom kër du ci àgg mukk te mayewuñ ko donte meerub juróom-ñetti fukki at la ni ma ko faral di waxee yàgg naa ko wax euh, daanaka li ma li may bu ma ko joxoon meerub juróom-ñetti day am borom kër moo tax Euh, li nga li nga laajoon ci njëlbeen am solo mooy ndax asraar bay na bàyyi na dara ba léegi mooy mooy feeñaat foofu ba wut dara lépp lu nit ki mën a dund ci problème wala lépp lu nit ki mën a bëgg ci àddunaam boo jaaree ci asraar rek mu am ko. waaw Ousmane Sonko bëggu nañ nga waxal ci mbiram ndax mbiram yéme na lool doyna na waaw dégg nga ci euh, détail ci opposition bi dégg nga détail ci état bi lan nga gis ci mbiram. waaw Ousmane Sonko mom mbiram yéme na lool ni nga ko waxé waaye nak euh, limi muy yéem yéem ñun moom yéemunu ndax li tax yéemuñu moy yalla ko def ni mel yalla nak lepp lu mu def bu dee nit nga ko xam yalla deug deug deug du la yéem ndax ko xamni fa kullu ma siwahu sunhu sunu nu mu melal doomu aadama rek wara jaaxal kudul doom doomu Euh, may wax ni euh, lima faral di wax rek ku yalla teral la ko xamni danaka bi yengu yëngoom wuute nak mbolim yengu yengu yep ndax lum lum la rek am barke day daal am barke dañ koy jublu jublu nak dogalu bi yalla la bu wacc ci kawam xamna ni dal lima li ma xam borom ar nako ko bo xamni euh kep ko xamni yang mangga koy yang koy jema songu ah, man nga man nga ngaa man nga am ay jafe-jafe yo xamni do xam sax foo koy jëlee du ci mom ndax bu doon moma Euh, tey jii ku ko wax dara rek mu def ko mu def la lu ban du ci moom lu lu mat a leeral lañu noonu waaye yàlla la yàlla dafa am jaamam yoo xam ne da leen a da leen waajal préparé leen lu nit def ci ñoom rek yàlla nga koy digaaleel ni nga xamee ni am na jaam yoo xam ni boo leen tooñee buñ la baalee sax yàlla du la jéggal loolu la. <laughs> waaw waaw li ma mën a xam daal mooy euh, mandarga yi nga xam ni tege na ci moom bu ci awee moom mooy yoon wii mu ne bu ko wëccut. mom sun borom dina ko defal mbollem lu meuna bëgg meuna ko am waaw ndax ku yàlla dimbali la ko xamni nit ñi bëgg nañ ko nit ñi jublu nañ ko tay tam don na ko xamni yàlla rek moko meuna fagaagal way du dooma aadama yàlla rek ko meuna lor way du dooma aadama te lu am solo ngi non abdur wa nafhu min arrahmani laysa min albidani wa njariñ ak lor mom néewut ci nit ku ñuul ak nit ku wex ci yàlla la ne mm وعلى الصلاة والسلام على أشرف المرسلين بآله وصحبه وخديمه آمين دلين سنت بباخ دلين جاجفل